Sénégal kese moo fi am en tout cas journaliste bu prison mu nekk loo xam ne lu ñaaw et je pense que Christophe wax nag léegi nii euh, Sénégal ak position bi mu au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même au niveau de l'Afrique il dina ñaaw trop maanaam gàkk bi a bi am et surtout président mu carrément que Sénégal dafa am lu mës a occupé ba tax en fait loolu waruñu ko yàq ak di dugal journaliste kaso en 2018 c'est Paris ne mom moom ci magistère am ci li ci mandat am journaliste du mës a nekk kaso du mës a dugg kaso et tey jii nii Pape Alé Niang ngi kaso donc lii waaye journaliste mom mënoo ko tënk mënoo wax ba du génne information classé secret défense wala tub secret mënta nekk mi ngi fàttali sax moom que moom journaliste investigation la woon façon euh, information bu nekk classé secret génn naka ko te ci dem kaso donc nag tay ji Sénégal bu dee am ci donc dafa nekk loo xam lu ñaaw la et lu jara Euh, vraiment waaw euh, jamono jii nii Reporters sans frontières mi ngi suñu wet nar ñuy jàppale ci xeex bi et vraiment li ñuy ñaan ñoom mooy libération Pape Alé Niang ci lu gën a gaaw.